khawatim ak ismullahi asam ak alquran karim wala lu ju waay yitte woo rek bu ko bindé dinañ ko tomp insha allah taala tey nag dañuy indil jarignu xaru tabaski di ñaan ya, nak yéen ñi abonné ko ci chaîne bi ngeen abonné na yaatal vidéo yi mbokk yi mën ko def mëna mën chaîne bobu mo ci moo dal ci secret asar seen mbokk ci maamu ci la maa ngi fas yéene di ay secret kon tay dañu ne indil lenn ci njariñ yi wax xaru tabaski bi ñu jëk nak moy ko xamni dafa amé loxo comme loxo bi di metti muy faral di am ay taab muy faral di am loxo lu bëree bëri loxo bi di néew bi moo koy faral di am lu bëri kooku na bàyyi ba bisu tabaski wextanu xaru tabaski yi boo ko amee mu fax koo diw ci loxo yi bu ko ci diwee bàyyi ko ci ba mu wow ci ku amagul bu ko defee non seulement du ko am ku ko am nag moom bu ko defee dina tàgg moom te dootu ko am insha allahu taala waxtaan wi mooy li nekk ci biir xaal bi te muy vert te nga xam ne bu laalee ndawal gi rek li muy ndaw ndawal gi day wax ci wexaay maanaam waxtaan yow lu am solo la am na ci lépp lu suñu borom ñu tamuy tamuy dund di lekk rek amee na waxtaan yi loolu mooy waral doomu aadama waxtaan yi mooy waral bu doomu aadama lekkee ba noppi mën naa lekk te la muy lekk nag fa mu ko toggee te ci la ko toggee boole ko diw ak ñoom seen bu yeexee tuuti dina ñor ba lépp xooñ maanaam bu ko bàyyee ci taal bi mën naa ñor ba lépp xooñ waaye waxtaan mooy li yàlla def ci biir doomu aadama nga xam ne bu doomu aadama lekkee ba daf tamit lu ndaw ci toq li ci toq lu mu daw daw rek dafay daal di ñoral kii ba ba soppi ko te du kon suñu borom ko kéemaan la loolu mooy waxtaan bi waxtaan bi balee ku ko ci sa ay ay tànk léegi sa ñaari tànk ba noppi daal di dox juróom-ñaari jéego soo ko defee yàlla dina la mosal képp ku la liggéey mu dellu ci moom képp ku cibb sa tànk moom dina mel ni ku cibb ku cibb ay xew wala ku dugal ci loxo ab taal te ku na xam ne loolu tarbimt ak maanaam ko bu sa loxo dina ko delloo wala mu teg ko tey lu mu def ma ne bu wattuwut moom dina génn àdduna waaw lu mu la def ci liggéey ba nag moo tax ñuy wax ba léegi itam bokk na ci njariñu xaru tabaski dañuy wax resu waaw resu xaru tabaski bi ku bañ a dugg kaso res yi boo ko jëlee nga bind ci ay alquran benn baatu alquran boobu mu ñuy wax mujj xeemataan amulu suuf soo ko bindee nga lekk ko nga togg ko lekk ko soo ko defee boo ko togg da koy lakk wala boo ko lakk wala boo ko lakkul da nga koy baxal waaye kenn ko toggee diw soo ko defee insha allahu taala doo dugg kaso mukk ci set bu si la dugg kaso nag buñ ko waxee nekkul caagi ñi da ngay def la neex ba nak tan lo meuna tek de wa yalla yàlla da lay mosal ci waral ñu yobbu ñu doom aadama kaso insha inshallah taala ba legi di wax it ñi nga xamanteni ñoom euh ñi nga manam ko loxom bënn te muy lu yaatu yaatu ñam nga xam dañuy amee loxo bu bënn daanaka ko yëpp sëriñ ko ne daanaka mën a toog seen nit du lako dis ñu bëgg la indi la loo ay ñeñ la dem te do ci bindante do ci sonu yalla tàggale la ñoom balegi yep yëpp ñu njariñu tabaski bisu tabaski bo faxe ba am ci dereg dereg bi ñi bi ñi lan taxabe dereg bi jige ci baat bi bo fexee ba am ci nga wut fudde nga boole ko ak mom soko defé nga fuddanoo noko ci say loxo bàyyi ko ci non bo am lu man ñet wax soko defé non seulement loo amati dina top solo inshallah taala da nga taggo ak ñi ñi wax loxo bu bënn balegi itam képp ko xamni euh balegi gum gi yow xal tabaski ak ay njariñam manam gum gi yo xaw ta bés mi bu ñu reyee xar yi ba noppi nga ci tuuti ci gum gi min ta kon ci bad bi bo ci dege tuuti soko takke takkee di nga am ni ko ko di nga am wërsëg yo boo ko takkee góor bu ko takk du mën ndialo jigen jigéen buñ ko takkalit génn gor bu ko mën a kon loolu am am solo la waye nak gum bi nekk ci bad bi rek ci lay doon am buñ koy takk buñ koy bu fekkante ne nag da ngeen dañu bok ñi xamni ñom seen gum ci tanku lañ koy yoon ba lay baax waye dal na nekk gum gi nga xamni ni dañ ko rayee ba nag moo nekk ci moom incha allahu taala soo ko defee yàlla mën naa def xéwal incha ba njariñ yooyu ñu wax ko ci séntu daba ko ci allah yàlla defal la ko ci incha allahu taala ba léegi itam gum gi ku ko denc ba at mi dellu si maanaam gum gi nga yowoon taxan nga wut denc ko sa doon lal wala foo ko mën a denc nga bu at dellu see di nga am xar tabaski incha allahu taala ko ba ba ba at mi dellu si incha léegi lu yaatoo dañuy wax gi luy metti te muy lu yaatu rawat na ci suñu mbokk soxna yi ak mag ñi dañ koy jàmbal lu bari na fexe ba am sagar wu weex bu amee sagar wu weex nag mu daal di bàyyi bañ leen di xaratu ci ci deret bi mu toppal ci tuuti rek tuuti lay taqal euh, ci sagar bi tuuti rek tuuti li yam bu ëppee rek mën naa raam li yam rek la ciy taqal euh, bu ko defee ku ndiggam ni metti nga jox mu teg ko fanaanal ko ci ndigg bi bu ko fanaanoo moom tàggoo na ak ndigg bi metti ba léegi loolu bokk na ci njëriñu xaratu ci ba léegi itam euh, paaka bi ñu doon raye xar mi xar tabaski mi paaka bi ñu ko doon raye bu ñu noppee ku jël paaka ba ku bëgg kiis ku bëgg xel ubbeeku wala mu bëgg doom xel ubbeeku dafay jël paaka bi mu bind ci suratul ahla sabbi isma rabbika ahla ba saar bi jeex su ko defee wala mu bind ci aaya xam ne inna allazi farada alayka al quran ba aaya ba jeex mu bind ko ci paaka bi bu ko defee mu tàngal paaka bi ba mu tàng jër mu dugal ko ci ndox mu fay kunapenda mun kum ko jox mu naan ci rek ku ci nan ku ne yàlla mën na ubbi xelam ba lum jangati xam ko to lum xam mo toog ci boppam insha allah taala ba legi tam xar mi buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko buñ ko de ray bala ñu ko rey ndax mi mujjé nan bu lesse ku ko jël ku ko jël manam def ci lu man ñetti xali safara wala juroom ñaar nga sango ko boko sango ben ñu rek yalla mën na laa dimbali mbolem lu nekkon sa man mën nga tàggoo ak lolu kon mbokk yi tey lii lañ leen indil ci njariñu xaru tabaski li ci des dañuy bàyyi ba beneen yoon ñu ñëw indil leen ko incha allah xam naa ni nag ba léegi ñi amagul xaru tabaski te bëgg koo am donte defoon naa ci vidéo waaye du ñàkk tey ma joxal la ci beneen tour bu ñu wax yaa mën naa ne yaa mën naa yaakaar naa ñu yëm ci asaar yëpp xam nañ ko ndax moo jàpp deux na deux bi firi xar muy 141 yaa mën naa ne boobu disciple 141 la jox kon képp ku bëgg xar na koy wérdu moom yaa mën naa ne 141 suba ak ngoon wala gannaaw bu ñu su koy def masa maya rin ako yung balang am xar ci kàttanu yàlla insha Baik taala kuman kuman kuman khatin, man na bin khatin bi su ko bi def ko ci poos bi wana api di werdu du ko sangoo lay def ci poos wala mo tak korek di werdu yaa man nami, ne du ko werdu rek saa yu jullee mu koy werdu cent quarante ko defee dina am xar mu gaaw gaaw bu dee bi profito sama cameraman ñu dem kitab so suka su ko defee ma ko ñu mën koo xam ñooñu mën koo jëriñoo incha allah taala kon da ngay ñëw rek bi incha allah taala waaw kon mbokk yi ñoo ngi ci bi bëgg leen a indil nag xaatim bi ma leen doon wax mu nekk am musalla su mën nga koy dagg su ko defee nga def mbokk yi xaatim bi nii la bu baax Mikail Israfil Masail kan buka deh be buat dek dek macam masalah mana sini ini yang kau kau dek dua kali fee sangat rancet dua kali fee sangat rancet tuh sangat rancit sangat rancit 140 140 cent bi nak bo fi ñëw man nga fay duggal tour bi moy nga def ko ni man nga fay duggal tour bi moy moy ci digg bi moy ya mën naanu nga duggal ci biir ci biir mim bi bo boo nga duggal ci biir adat adat bi moy 141 muy firi addanu moy mo japp adadu tur bi mo jappi addanu muy dan bi firi xar kan. nga tej ko continuer ba def fi 142 def fi 143 def fi 144 def fi 145 boo noppee nga warale ko lii ya mën naa ne yaa mën bi mu koy warale wërale ko fi yépp mbokk yi e kon li moy khatim bi yéen ñi koy e gis la dugal xaatim xol leen a jafe eh. ñi ko mëna a ñom fa lillahi alhamdu waaye ñi ko mëna kon gën na jàppale ñom so ko rewé da nga ko def ci sa pause wala nga def ko tak euh di wér du yàmm na sa quarante gannaaw bo jullee suba yalla mëna na laa yombalal xaalis ci katanam ak ci magam ak ci barki alquranu karim kon mbokk yi e di ñaan ngeen abonné ci chaîne bi eh, tay ngeen yaatal video yi mbokk yi mën ko jot jëriñu kon jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah